mbokki Sénégal mbokki réew mi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 jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun ci wasaare lamb ci xibaari lamb yi la ñuy daal di dugg ak yéen tàmbale ko ak euh, jamaïcain jiital jam production mi organisé woon combat bu mag ba ca Gambie diggante xoyantaan ak Baye Mandione combat boobee fas na ko amal ci biir réew mi danañ taataan ay kàddoom ci micro ji li Kébé Mame Balla aussi wax na ci huis clos bi nga xam ne ni njort nañ ne lamb ji fa la jëm dana jig lambam déet en tout cas moom mbëru lamb boobee fare ca Pikine yëkkati na ay kàddu daal di àddu ca nga xam ne moom la ñuy ruumadaat ca suuf ci wàllu Ousin Diop wàcc na ci terrain bi daal di gisanteeg amateur yi tàll leen micro ba xam ndax euh, sàkku nañu ko ci làmb jéem déet wala bu amee ana fan la jëmee suñu làmb ji fi ñuy jeexale nag mooy diggante écurie fas ak écurie Ndakaaru bi nga xam ne dañoo fas yéenee booloo nekk benn ñu ni koy dippee sax fusion loole am na ay kàddu yoo xam ne ni amateur yi fare ca Fass yëkkati nañ ko mbokk yi ne surtout bàkk bi daanoo ñoog yéen ci li gën a yaatu ci xibaar yi comme niñ leen ko waxee ci bopp xibaar yi jamaïcain jiital jam production mi demoon foofee ca Gambie daaw ci saison bi organisé fa làmb ju rëy rëy rëy doon dox ci diggante Baye Mandione ak Xoyantaan combat boobee nag ci fàttali mbokk yi amoon euh, benn gàllankoor boo xam ne moom moo waral combat ba mujj ñu koo sifflé ndax ay wee yoo xam ne daggloo woon nañ ko Baye Mandione mu bañ ba tëdd ca ñàkk ba ne dagg wee yooyee loole nag mbokk yi waraloon ñu puus làmb ja puus googee wala annulé gi ñu annulé làmb ja tax na njiital jam production bi nga xam ne moom mooy Jamaïcain te organisé woon ko ne fas yéene na ko indi fii ci biir réew mi dañuy dem itam ci ay kàddoom ci ni mu gën a yaatoo ci micro Djily Kébé. noonu contentement gi ci am mooy bi ñu koy def dañ ci xalaatoon ne ñii lay demee ndax xam nañ ne Gambie dañuy dund làmb chaque jour yàgg naa wax nañu yóbbu Gambie ay événement kon su yàlla defee ñu ñu def ko jël benn lutteur fii jël benn champion Gambie boole leen mu nekk làmb joo xam ne drapeau Sénégal bi la xam nga. réussir bu mu am nag bettuñu waaye liggéey ngeen ci liggéey bu am solo lu TV TFM yëpp jàpp ci lamb ju demee noonu askan wi doon ko xaar àdduna doon ko xaar mu ñëw doxee noonu yàlla moo ko bëggee woon noonu wax dëgg yàlla ñu ngi koy sant ci loolu bu baax di ko ñaan mu dolli ñu xam nga ñu defaat lu raw lu ñu defoon Gàmbi ndax lamb jooju ñu meloon ci àdduna bi àdduna bi toog di ko xaar looloo tax sax waral bi mu demee noonu ñu taxawalaat ko pour indiwaat ko Sénégal. Mhm. lamb jooju taxawaatal nga ko. waaw pour Sénégal fii comme Gàmbi la lañ ko defee woon àggul. li lëndëmoon Gàmbi yëpp dañ ko bëgg a leeral fii. ndax lamb joo xam ne lamb ju waral yegg la lamb ju dox si diggante ñaar réew la bi ñu génn Baye Mandione moo demoon fekk xoyantaan Gambie bi pourquoi pas xoyantaan déplacé woo Gambie ñoo fekk ca ma Mandione. ñoo ko déggandoo mbokk yi combat xoyantaan ak ma Mandione ba amoon foo foofee ca Gambie. Euh, jam production wala jamaïcain mi nga xam ne mooy njiital jam production te organisé woon combat boobee dégg ngeen ay kàddoom kañ lay am ak naka lay amee en tout cas li ci kanam rawu li bët euh, noone la ñuy def jàll ci ki nga xam ne moom mooy Mame Balla fekk baax foofee ca Pikine tàllal nañu ko micro ki doon waxtaan ak moom moom mooy Ousin Diop doon wax ak moom ci làmb ji ak huis bi nga xam ne ni moom lañu ñu dëgmal naka la ko gisee Mame Balla moom lañuy ñuy déglu. jeex léegi bu ñu defee huis clos mooy làmb jeex na mooy làmb moom boo bëggee dégg-dëgg mooy làmb moom dootul amati xanaa ndax huis clos ban sens la boo defee huis pour muy leer ñooy ñëw tëggat ñooy ñëw ak mbëri ñaari mbëri kese ñu ñëw xool luñ bëree foofu nga xamee mbëri tàppet yi nag huis clos daa am sens. non non huis ne foofu nga xamee a tàppet ci mbëri foofu nga xamee ci huis clos huis amul sens. nañ bàyyi gars yi fi mu toll nii man la su ma xool ban effort lañ war a def pour gars war a mën a bëre. mais est-ce que dina neex sax ndax Mamba ñu tëggal ko mu mu tuus daw yuuxu kenn tàccewu ko kenn yuuxu ko est-ce que dina am sens est-ce nga sawar sax. non mbëri am bopp yi da am feem ci làmb loolu yëngalu leen bu ñu defee wii kulo dañuy ñëw pour milliard dañuy ñëw pour ñëw pour bëre si pour daan waaye mbëri tàppet yi bu loolu amee fi toll nii ci ngay gis mbëri ci ngay xamee mbëri ay tàppet dëgg la. non kenn waxatul loolu wii amul sens tamit benn côté mbëri promoteur yi ngay wax ni dañoo yàkkamti pour def ko rek buñ ko defoon léegi léegi nii affaire yooyu duñ ko defaat bari na ay mbër yu mel ni moom wala ñuy xalaat li muy xalaat jàpp ne wii ku loolu yàq làmb la moom da yëkkati na ay kàddu xamle ne moom amul benn yoon bu mu d'accord ci wii ku la yooyee waaye dafa jàpp ne luy rey a rey làmb ji la noone nag la ñuy jàllee ci micro trottoir bi nga xam ne defal na nañu leen ko wàcc ci terrain bi taataan kàddu yi ñenn ci amateurs yi nga xam ne ñooy suivre làmb te di ko suivre foofee ca stade ñoom ñu jàpp ne wii ku bu ñu ko rek mooy rey nañ làmb ji ba mu dee dañuy dem taataan seen kàddu ci micro Ousin Diop. yaakaaruma ni mën na nekk wii sponsor yi duñ ko nangu amateur yi duñ ko nangu loolu gisuma ni solution la ci làmb quoi waaw man daal lu ma gis mooy kon que feer bi am na rek mu cee mënuñu cee ñàkk ak làmb mu làmb mënuñu ànd ñu xool nu ñuy jëlee mesure barrière rek bu ñuy dugg jël jël takk masque toog seen làmb ndax làmb ak loolu ànd quoi. parce que làmb ak supporter ñoo ànd parce que supporter mooy tax làmb neex supporter mooy fay mbër te loolu bu ñu ko defee day rey lamb te arrangé wul mbëri aussi. parce ay supporter gis benn zil ba yaa naa la eh, ama dafa lii ñu ngi sa ginnaaw mi job mais dooy bëre gisoo kenn sa ginnaaw day tax yow boo waroon def benn doo doo ko doo ko def. pour man làmb yaakaaruma huis clos dina dem si làmb quoi parce que xam nga bëgg-bëgg dara loo ko bëgg-bëgg tam da ngay waxta akulaay taala ak li nga xam ne mooy réalité mooy dëgg quoi parce que làmb tey boo xoolee bu ñu ko defee huis clos tey ji Eumeu Sène tey Modou Lo wala Lac de Guiers exemple Eumeu Sène tey bu dee tey lay bëre exemple ñu ne huis clos lañ koy def tey ji boo demee këram mbooloo bu bëri nga fay fekk convoi bu mag mooy jóge foofu yóbbu ko stade xanaa buñ dem ba stade lañ dul dugg te buñ duggul tamit dinañ nekk ci ci ci ci ci ci buntu stade bi quoi rassemblement day am mënut a ñàkk ñu takk masque yi rek def zel yi waaw wàññi tuuti supporter nit ñu dugg ñu bëri. waaw wàññi supporter yi mais tamit làmb est-ce que mun na am sans supporter tamit du neex. ah looloo jaral du neex. loolu moom moom pour man moom sama xalaatu bopp mënul nekk du neex parce que làmb mu supporter yi ñoo koy dundal ñoo koy neexal. non làmb mooy suñu cosaan bàyyi. barke Seydina Mohamed fi ñu topp tubaab bi quoi ñun moom gayen làmb su amee moom lu ñu gënal mooy xam nga ambiance bi gars bu nekk ci ci ci xama ñi nekk loose ñi nekk ci xama bëggee quoi voilà ñu nekk ci jàmm waaw mooy loolu dimanche jot nga sañse dem seetaani sa mbër mu daw tuus nga daw te yuuxu waaw xoolal loolu rek namm nañ ko trop trop trop trop trop sax gannaaw loolee mbokk yi wii club bi danañ ci demam duñ ca dem amateur yépp ñu ngi ciy àddu mbër yi tamit ñu ngi ciy àddu en tout cas li am ba des mooy ñi ëpp ci amateur yi ñi ci mbër yi jàpp nañ ne wii club boobee luy rey làmb la waaye am na leneen lu ñu jàpp ne luy suqali làmb la mooy fusion bi nga xam ne écurie yu mag yooyee di écurie Fass ak écurie Ndakaaru te ci taarixu làmb mënoo tudd làmb te tuddoo leen ñaari écurie yooyu fas yéenee booloo doon benn mun nar a nekk doole yenn ci amateur yi rafetlu nañu ko micro trottoir ñu leen ci defal taataan nañ seen i kàddu ci micro Ousseyn ñu xool xam xam naka la amateur yi gisee boobu fusion. pour fusion bi nii pour mu nekk ñoom ñaar man am naa yaakaar ne war na mën a nekk euh, parce que boo xoolee làmb ji fi mu toll nii boo xoolee genn wàllu mbëri ñi si bëri ñi voyagé nañu ñi bàyyi nañu bëre ñi découragé nañu. parce que làmb dox doxatul doxatul niveau boo xamante ne ñëpp war nañ mën a toog di ko xaar majeure partie bi ñëpp bàyyi nañ waaw mais loolu lu war a am lu yàgg la sax parce que booy xool xam nga Ndakaaru léegi kenn kenn nekkatu fa xale yi fa nekk presque. Fass lañ dëkk. xam nga écurie Ndakaaru écurie Fass écurie Fass Benno sax dafa war a bokk ci écurie Fass mu doon benn écurie. fi ñu toll nii Fass euh, nu mu mel nii en tant que écurie euh, demewul noonu ba nit ñi daan ko gis visuellement comme bu njëkk. Ndakaaru moom waxuma la visuel rek mais dafa amatul benn vision boo xam ne complètement parce que gisatoo sax li bari comme nga naan mbëru Fass mbëru mbëru Ndakaaru nga ni ñu ngi koy yenn yóbbu saat diw lay bëreel fu nekk ñun écurie Ndakaaru rarement nga koy gis léegi. waa Fass tamit la même chose bareetul xam nga ñi bàyyi nañu ñi dem nañ Europe ñi jël nañ seen yoonu bopp demeetul noonu. bu fekkee écurie Ndakaaru la suñu papa Kati Diop Fass la nekkoon moo forme ñoom Moustapha Gueye kon loolu sotti ceeg def ci la. xam nga man xale yi laay waxal nag nañ dem bootu ci écurie Fass mu doon benn écurie loolu moo jaadu. Kati ak euh, waa Fass yi benn lañu c'est que tur yooyu différent rek ñii dañ ne Ndakaaru ñii ne Fass mais benn base bi la sorante wuñu su ma amoon lu ma gënal moom wax dëgg yàlla moom dañuy nekk benn nekk benn écurie entraîné doo jëmandoo ci kanam du xàccee ndoo du dóorandoo mu nekk benn ku mën a ñëw liggéey ak ñoom nga sentir ne gis nga sa bopp ci biir écurie boobu nga ñëw ku munul nga dem mu ngi noonu mbokk yi fusion bi noonee la ko amateur yi gisee jàpp nañu ne lu am solo lu baax la luy jëmale làmb kanam la loolee nag kenn waxu ko lu dul amateur yi nga xam ne ñoo faree foofee ca Fass yi lii moo nekkoon li gën a ruus ci xibaar yi làmb yi ñuy leen di jaajëfal bu baax ci ànd bi ngeen doon ànd ak ñun di jaajëfal aussi kii di Jili Kebe Ousseyn Diop ak euh, Kàggu ak Adama ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci terrain bi wàccoon doon taataan xibaar yooyee cant ngërëm ñeel na leen ñu daal ak yéen ci revue de presse yi buñ ca jógee nag daal di tëj ba ëllëg incha allah ci yeneen xew xew-xewi làmb jërë ngeen jëf saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa écurie yu mag ya Fass ak Ndakaaru ña fas yéene booloo nekk benn booloo Fass ak Ndakaaru ku ko doon laam-laamee dama ne xippil say bët te xam ne léegi mu nekk sunu papa Moustapha Guèye ak sunu papa Kati seen waxtaan wa sori na léegi jëf ya nekk moom Moustapha Guèye le deuxième tigre de sax la ko waroon ca ndaje moomee def na ko mbooleem mbër ya fare woon ca Fass dajale na leen def ñoom ab réunion ba fa gis général bu dee Gris Bordeaux ak Gris 2 ak Lac Rose ak Pam Ndoy kenn gisu ca ndaje ma keroog ca altine jale Moustapha Gueye woote ab réunion daal waxtaan ak gone ya ba ñu noppee ca waxtaan yi nag entraînement commun yi dañ koo fas yéene démarrer ni janvier bii ñu dëgmal ku wax entraînement commun wax entraînement bi nga xam ne boo fa demee da fa fekk mbëri ndakaaru fekk fa mbëri faas ñoom ñëpp a fas booloo nekk benn di xàcceendoo ko tegandoo li yéen jël turu Fass Ndakaaru ñun daal njort nañ ne noonee lañ ko fa séene tudde ci biir fusion boobee nag danoo bëggoon Moustapha Gueye nekk directeur technique ba man ma nekk entraîneur principal waaye la ma leen xamal te sàkk ko ci ñoom mooy ñun ñëpp ñu nekk ay technicien bu ko defee ku ci nekk la nga am ci xam-xam nga indil ko gone yi rax ca dooli moom Père Kati Diop ne am na samay poulain yoo xam ne d'accordu ñu woon sax ci fusion bi waaye damaa bëgg ñu xam ne man maay Ndakaaru man maay le ma amee idée bi amul kenn ku ma ci waxtaanal mbooleem ñi nekkoon samay a yëgal kepp waaye daal damaa bëgg ñu xam ne écurie Fass ak Ndakaaru nekk benn bu nu jàllee ca huis clos ba ndax jig na làmbam déet ndax danañ ko adopté déet journal sunu làmb xëy na def ci micro trottoir waaye la ëpp ci amateur yi làmb yi li ñoo xam ne mooy d'accord ñu ci bile formule bu nu sañoon làmb dellu ca na mu nekkoon ñuy bëre di gis amateur yi supporters yi nekk ci kaw tribune yi di tàcc seeni mbër ak di leen pousser ak di leen may doole li ni mel sax tax ñenn ci amateur yi jàpp ne danoo war a bàyyi ba feebar bi jóge fi ñuy soogu ubbi làmb ji ñeneen ñi jàpp ne war nañoo ubbi làmb ji benn yoon ci làmb ji bu ci président Bira Sène ak mission ya koy xaar bokk na ci CRG yi mu war a ci mbooleem région yi nekk ci réew mi li ni mel nag le ministre des sports Matar Ba moo ko sàkku woon ci moom gannaaw dañuy samp ay CRG ci mbooleem région yi nekk ci réew mi benn région képp la ñu gis ne amagul CRG muy Dakar bu ñu waxee CRG nag wax comité régional de gestion de la lutte mais nam Dakar moo ci amagul CRG taxawal ab CRG ci Dakar nag loolu liggéey bu rëy a waaye ku samp ab ci région faaw ku wax CDG faw nga wax comité départemental de gestion kon bu ñu sampalee Dakar CDG faw yeneen département yi ci mel ni Dakar Rufisque Pikine ak yépp am ay CDG yile département bu ñu amee ay CDG faw arrondissement yi am ay CAG mooy comité d'arrondissement de gestion de la lutte ku wax arrondissement yi ci Dakar faw nga wax Almadies Dakar Plateau ak Grand Dakar ak Grand Dakar tuddaali ci Parcelles Assainies li ni mel nag la journal ba xam li mooy plateau Grand Dakar Parcelles Assainies ndax sàmpaleen ay CAG dana yombam déet en tout mel daal mission la boo xam ne le ministre Matar Ba moo ko jël jébbal ko président Bira ngir mu matale ko noonee la ñuy xippee gët di xool yeen salon la ciy teg jërë ngeen jëf mbokk yi li moo li gën fës ci yéene gaay bi ñu jox di jaay ba ëllëg incha allah